ëllaan bikum faa lànk faa bañ dootuma wuy ji xàttekat justice lii mooy kàddu yi Ousmane Sonko wax niki démb réew mi yéen a kaay yeggee ñu ko yéen a kaay bi ne Ousmane Sonko kay fa wax lu leer xàtte diggante moog Mame Mbaye Niang tey ak diggante moog Adji Sarr intaha c'est fini jeex na dootu dem tribunal di wuy ji yoon libération ne fam ko teg nag moom Ousmane Sonko mooy fa wax na fi mu toll nii lii mu gis Sénégal nekkul xàtte yoon déedéet waaye wàllu banditisme judiciaire musumaa sàcc man musumaa viola siif jigéen te musumaa waxal nit lu du dëgg maanaam diffamation bii ñu ma toppee ak Mame Mbaye Niang daraa ca amut su fekkee nag yenn àttekat yi fa ñu topp lu neex nguur rek ñu def ko te bëgg-bëgg nguur gi ñu jiite mi du dara lu may jàpp ci kujje gi ñoo xam ne fa ñu bëgg a bokk wote 2024 ñu ne leen du fi bokkee jaare ko ci wàllu yoon teg leen ay daan loolu man faa lànk du ko nangu moo tax faay xoo njiit mi Macky ci sàkk ci moom njiit réew mi mu moytoo deret ju tuuru ci réew mi ci loo xamante ne jarut ko vox populi na ko ah sonko ma ngay menacé de ñetti xàttekat yi ba ca procureur général léeg si ko yéene kaay ne xàtteeb Ousmane Sonko bi tey Sonko fa boycotté du fa dem waaye yëmut fa fa menacé àttekat yi ba pare artu njiit réew Macky Sall secrétaire général bu cour d'appel nag moom lañ yaakaar ne tey mooy jiite audience ba te fa ñu ragal sax ñu dàq ko renvoyé ko tey bi bu kenn ñun noppi neen ngir layoo source ay yéene kaay ne Ousmane Sonko nag ay avocat am fa wax na jotuñu convocation bu leen woolu ca atte ba Ousmane Sonko moom fa xalaatul sax di dem tey tribunal ndax ci même waxtu wi fay xamal réunion ak conseil municipal ca mairie bu Ziguinchor direct news ne en tout cas moto fa ñuy xaayee mu daw tey ndakaaru njaayum essence tamit fañ koo xaayee ci mbuus ak guttu leer <laughs> laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy na oustaz Assane Seck bu Sen TV takk daree teg nañ ko loxo ma nga gardaa wii de ah, yaaw seetal démb ca sibi xotaan la ko gaa yi loxo fa ñoo wax ne fa am ab moom Ousmane Sonko su nekkee candidat 2024 moom la sénégalais yi fal mooy nekk président te su fekkee fañ koo tere mu bokk ci wote yi mooy ne réew mi fay tàkk libération ne wax joojoo tax gaa jàpp ko turbine yéen a mel ni ku naan moonte Omar Ba président maire yu Sénégal yi moom it la wax déglu ko fa wax ne teree bokk njiitiram Macky Sall ngir mu bañ a bokk ci wote 2024 yi loolu mooy taxal réew mi rek ak tuur fi deret mu ëlbatiku dëggal dil bi nga xam ne moo a daal Ousmane Sonko mii fañ koy fitnaal ak a jaay do la def acharnement ci kawam te loolu baaxut leneen lu baaxut ci njiitiram Macky Sall ma ngi ko dalee ca londre Angleterre ah, yaaw seetal njiitiram Macky Sall daal fa dem Angleterre fan yi dugg ci benn hôtel rek ay sénégalais fekk ko fa di ko yuuxoo wuuwuuja foo toll di ko dégg lépp ngir ñaawlu ñi muy jàpp tëj kaso ak ni mu yore réew mi ba pare naan ko fa ngaa nekk dictateur wala fajir yéene kaay moo ñu ko xamal ba pare wane photo ña nga xam ne ñoo doon yuuxoo njiitiram Macky Sall bañ a yor kaaraange ga di leen jàpp di leen génnee ca ba Pape Malick Ndour jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndaw ñi mel ni ku naan leen ñun dafa ñoo kontaan ci njiitiram Macky Sall ni mu yoree réew mi moo tax fa dajale ndaw ña wax leen ni leen njiitiram Macky Sall bëggee ak li mu def ci yen ba pare nag fafaa gaaruwaale Ousmane Sonko indépendant yéen kaay ne Pape Malick Ndour kaay bilan xëyu ndaw ñi moom la doon def attaqué wàlla ku jéggi waa grand place yéen kaay mel ni ko naan ko lu ko jiitu nag ki nga xam ne moo di Amadou Ba njiitu jëwriñ yi moom it fa doon xamal bilan ndaje xëyu ndaw ñi yaaw seetal juróom benn fukki junne ak juróom ci emploi xëyu ndaw ñi moom lañ amoon yéen def ci réew mi waaye fa ñoo mujj lu ko ëpp sax 66 243 emplois loolu mooy 102 pour cent laas yéen a kaay nañ ci tujëwri ni kay fa ñaax ndaw ñi ca direct news mun a leen vingt et unième siècle bii ëllëg seen loxo la war a nekk te faa bëgg ngeen xam ne njiit réew mi Macky bëgg leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Déthié Fall nee na candidat la 2024 ba pare wax na programme am ëllëg buñ ko falee fan la nar a yóbbu Sénégal info yéen a kaay moo ñu ko xamal ah, yow seetal ministre yu bëri yi ci réew mi nee na fa koy dindi vingt cinq ministre doy fa fiy jëlee au conseil xamul benn njëriñ fay fexe tamit ba wàllug yoon atte tëddee njaaxaana amul farak nguur gi ba luñ bëgg rek nga defal leen ko l'évidence yéene kaay ne candidat 2024 Aliou Lo ba nga xam ne mooy candidat waa kaw gi moom i tamit fa xamal séminaire bu mag ndakaaru njaay dajale mboolam ñu bokk ci mouvement am bi mu duppee Sénégal conscient ngir leen ak sénégalais yi programme bi nga xam ne fa la war a jaar ngir suqali réew mi suñ ko falee ëllëg président 2024 ah, yaaw seetal Aliou Lo wax ne ñaari pàcc yi ëpp solo nga xam ne suñ ma falee président fa laay jaar ngir suqali réew mi bokk na ca suqaliwaat koom-koomu Sénégal fexe tamit ba Sénégal nekk réew mi gën a suqaliku ci àdduna bi ba pare fay yeesalaat setal géewu politique bi fexe tamit ba xàll bi kaw gi saafara seen i jafe-jafe l'évidence yéen a ne Aliou Lo mii nañ ci bàyyi xel mën naa def surprise de keneen ku nekkaat candidat 2024 mooy journaliste bi ñuy wax Pape Djibril Fall Vox Populi moo ñu ko xamal moo ko waxal boppam ne ginnaaw assemblée nationale jàpp na ne fi naa jiite réew mi suqali <laughs> la neen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne Ousmane Noël Dieng fa concept bu mu tuddee Kaolack sama yitte maanaam fa fas yéene wër quarante ya nekk Kaolack ci fukki fan ak juróom wax askan wa li njiitëra Macky Sall liggéey ak déglu leen tamit seen i jafe-jafe l'évidence yéen kaay yi ne gayndeeg jéen Farba Sarr bi njiital MJK door na yëf de la dépêche yéen kaay dañu xamal ne Amadou Lamine Sall sigil na Sénégal ci réewu Maroc ndax loro yàlla ci grand prix buñ jagleel wàllu poésie ci Afrique benn ci réewu Afrique yi bu